Assalamualaikum, suñu mbokk internet yi <clears throat> ñoo ngi leen siar ba di leen nuyu di am kontante ak bëkk trop ci téw bi nga xamni dañ dañu ko fee teewaat seen émission auto tuuxi xiduna émission bi tay nak yaakar na ni duma wax sax ba gëna yéme waye day bokku ci ci yéme li tax nak ma wax ni yémem jéggina dayo ndax dafa am benn baat bu may faral di wax lu bari bari ci biir émission bi mais dafa mel ni baat boobu li mu ëmb ci suñu société dafa bari trop moo tax saa bu émission bi di am rek kaa yuy jot yépp yu ci ëpp dafay ànd ak baat boobu muy baatu lu loo jege rek du sa cër tey nag kaa bi nu indi waxuma la sax doy waar waaye dama ko yàgg waxee rek kaa bu ñëw dañ naan bi nga fi jógee moo gën a yéeme waaye bi ñëw mooy gën a yéeme li tax bii ñëw mooy gën a yéeme ndax tey kaa bi ci li mu tegu dafa tegu ci borom alal koo xam ne yàlla dafa barceelal alalam barceel wërsëgam torop macha allah mu am ak jafe-jafe ki nga xam ni yàlla daf koo teg Natu, natu bu toll ci nyak. ñak waye nak sunu borom day faral def ni bu la maye alal lol. ma yàgg di ni alal boko ko amrek, am rek hamni nga ci ñinga xamni ñom ñoo gëna jégé safara waye tamit boko amé bok nga ci ñinga xamni ñom ñoy gëna jégé aljana a nek ci jëf yi ngay jëf bu nak ni da nga ñak jégé nga lol koo xam ni dafa na mu jëm suñu safara ndax amaana ñàkk mën na laa yóbbee lu baree nga def ko ndax ngir bëgg am kaa bi nag ci loolu la sukkandiku mooy ku am di jëfandikoo am amam di wane doole ci am amam ki ñàkk nag li ñu faral di wax ni yàlla suñu borom bu la xañee dara dana am leneen lu mu lu mu ca toftal lo xamni moy nuru nuru lu lu remplacer ñak jojé yalla nek ñu bari bu len maye alal ñu japp sen alal ni mën nañ ci sag ab gor mën nañ ci xas as gor mën nañu jënd ak gor go xamni gor la won sen alal ñu nam mu doon xeetu jam li tax ñu wax lolu moy ka bi ma nga amé fi ci Dakar kenn ci ñoom ci kaa bu wàcc faatu na waaye ndas yëpp ñu ngi dund kaa bu nag tàmbali na 2013 ba actuellement nii ñoo ngi ci 2020 kaa bi nan la demee dafa am benn góor bu bari alal torop macha allah ñu bari xam nañ ko ci réew mi waaye na xëy na duñ tudd turam góor googu nag yàlla may na ko alal ju bari te barkeel ci yooyu jamono. ba pare nag may ko ñetti soxna waaye ci ay dëkkandoom yi mu dëkkandool dafa am kenn ci ñoom koo xam ni dëkkul ci réew mi dafa jóge gine ñëw ci koñ boobu dëkk fa waaye yàlla dafa dogal mu yëngu ci xeetum njaay waaye nag sunu borom ni ma ko yàgg waxee rek ne su la xàññee wërsëg dana la may loo koy remplacer ci xeetum bànneex dafa may góor googu mu am benn soxna su rafet cu taaru soo xam ne maa ngi ko takkee woon Guinée waaye nag xale boobu xale la woon ñu téye ko ba xale ba xaw a màgg am 16 ans 17 ans ñu indi xale ba nekk ci keppaaram laata xale boobu di ñëw ci koñ boobu nekk soxna yi guinéen boobu nga xam ni Palafoota la. palafoota boobu seqoon na lu rafet ak waa koñ ba seqoon lu rafet ak borom alal jooju bi soxnaam nekk ñëwee ci koñ bi ki nga xam ni dafa bari alal dafa xemeem lool soxna yi waaj ji da koo bëgg torop waaye nag ci bëgg-bëgg boobu yépp xelam ma nga ca waaye amul yoon gi mu ko jaarale ngir agsi ca moom wax naa ko léegi sama njëlbéen wax ni boromu alal ñaara day faral jàpp ni lu ko jege rek mooy boroom wala ci alalam rek la mën a jëndee as gor daf ko jaam comme nekk bi xelam nekkee ci ndaw si itam yépp mooy jot ci ndaw ci li mu njëkk a def mooy événement bi njëkk xew ci at moomu juste 2013 muy atum tabaski dafa dem jënd xar bu rafet boole kook yamu àndal yépp teg ca ñaar fukki junni ne da ko dimbalee góor googu nga xam ne dafa néew doole ak soxnam wax naa ko ci benn émission ne Sénégal dañoo fonk taraanga waaye nag àdduna ñetti may rekk a am may la ngir bëgg laa jënd may la ngir ëllëg bëgg laa xas may la te yàlla rekk tax waaye may bii nag dafa am lu soobu ca biir bi mu yóbbulee nag soxna ci may yooyu ak borom këram yëpp ñu kontaan te trop macha allah am ci mbëgte lool ñu jàpp ne borom alal la bu nu dëkkal bu leen dimbali te yàlla rek a tax fekk ba kennam rek la moo ko womat cib caaxaan goo xam nar na ko ci jabari jàmbur. bi mu defee loolu nag ca tabaski ba ginnaaw ga julli ga ak yooyu yëpp suñu borom dogal na ni góor ga dem na ci këram siyaar ko ndokke la ko ci jëf jooju mu baax. soxnam nak sañse na lu rafet dem nak ndokale soxna waram alal joju waxtan ak mom manam gërëm ko lol ci jëf yoyu rafet yoyu mu def lol nak mo indi borom alal ja muy seen dekk ndogo bari alal jëf joju mu jëf nak moo tax mu jege nak goor ga ak sona soosu yoyé nak def nako ad at bu ñëk waaye nak arrêté ko dafa continuer mom di tabir loxom ci kër ga xëy na nag ni ma ko mën a tuddee cib yoon alalam nag ma ngi koy bëgg a wane nag ndaw soosa ne moom am na alal mënal na ko lu ko borom këram mënalul mënal na ko lu ko kenn manalul jàppatam ne ne jigéen jii moom ni mu taaroo moom warta sëy kii wala tamit kii yellewu ko xam nga loolu tamit day doon lu gàtt xel ndax bu la yàlla mayee alal xañ ko kële may kii soxna su taaru te rafet amaan sax yow am nañu ma la may nga bëgg ne loolu yaa ko féete woon ndax yaa bari alal loole nag ma nga yaa ngi bëgg topp sa bakkan foo xam fa mu lay jëmee day nekk lu ñaaw waaye nag àdduna nag c'est pas la fin moom jeexagul loolu ne am na fi bi loolu amee sek weer wu ne muy jox waa kër gi leen di leen dimbali si ay dund di leen defal taraanga yi bari mu dem nag ba soxna si nag ndax dëgg yàlla ndax taraanga moom ku la ko defal rek danga nga am ak moom ay relation ay miinanteeg góor tamit noonu góor ga xelam musul dox. jëme ci ni kii moom am na lu muy tànt ci soxnam walla déet waaye nag comme borom daraja la day ami pexe ndax bari na ay oto am na ay kër yu bari yi tamit am na xëy bu baax li indi nag mu dem nekk ba jaxasoog soxna soosu dem nag ba lépp lu ci tukkoo tukkee ci yépp mooy dafa tàmbali nekk benn jamono ab nawet la tombeloon xam ngeen kër yi nga xam ni dafa féetewoo zone parcelle 1 ba 26 am na kër yu suufee yoo xam ne ñaare ndox dafay gaaw a di dugg ci biir kër yooyu mu tombeek nawet ndox ma nekk tabbi ca ba ndox ma ma tàbbee nag ca la góor ga mi nga xam ne moo bari alal te ba léegi ma nga xemme mbir yooyu léegi toll na ci ñetti at mu ne kon nañ leen dimbali nañ fa naa fa jëlee góor googu fexe yóbbu ko war ko feneen mais tamit gën leen defal ay bagages fere na ci lu mu gàtt gàtt ñaari million ci loolu sonna ci nag ba léegi ñoom nànduñu loolu xalaatuñu sax loolu mais ndekk àdduna jëf joo gis day am day am day am mujj sone si nag mujj naa toxu ak góor googu génn koñ boobu ndax góor gi loolu la nattoon ngir lim bëgg mu gën ko mën a am ba nu génnee nag moom am na feneen fu mu leen yóbbu tàmbali na nag moom di yëgal nekk soxna yu góor ga dafa am nekk ak bëgg-bëgg ci moom ab xemmeteef ci moom tàmbal na ko wax yu ni mel soxna yi tamit la faral di wax rek ne jigéen moom jigéen rek la yàlla bindee na ko du ñàkk yenn saa yi am na ñoo xam ne bu ñàkkee ba léegi dañu am seen ngor am na ñoo xam ne amee ak bu ñàkkee dañuy sàmmanteeg seen ngor waaye yàlla mayu ko ñu am na ñoo xam ne bu nu ñàkkee dañuy gis ni rek ñàkk bi warul war nañu am yeneen mbir mu dëpp ku nekk soxna soosa jëkkoom nag xaw a nag mel noona mujj bi nag mu ànd ak góor googu di jëflanteeg moom di njaaloo ak moom di jaxasoog moom saa su ne jaxasoo nag moom ci diir bu yéeme sax gu doy waar bu yéeme boo xam ni kenn mën su ko wax mu dem nag ba sonasoo soo gàttal rek soxna sa dem na ba waxuma la sax taaram waaye taaram jéggi na fa mu nekkoon as yorom komam dépassé na boroom këram ab xëyam ak ak avancement wam dépassé na borom këram jigéen nag mën nga ko mat ci mag ci ay at waaye mën na laa mag ci jëmm mag la tamit ci ay xeetu am am ak xeetu koom-koom loolu nag dal na góor gi ak soxna si